ci yenn kaay yi El Hadji Ousseynou El Hadj Ousseynou Ndiaye dal léegi nag mu leer ay fan rek moo dox suñu diggante jongante jiitu réew moo jamono ji juróomi candidat yi nga xam ne ñoo taxaw ngir laaj réewum Sénégal ku ca nekk foo xam yaa nga fay jëm ngir eggale loo xam ne jëm na ci wàllu campagne électorale bi yéen bi nañu maa la ñëwal bu dee candidat bi nga xam ne nag moo di Macky Sall ba mu eggee ca Pikine digg na fa ay digg yu tooy xepp ñu xamal ne ndaw yi nga xam ne ñoo nekkee fa millions ci ay ndaw yoo xam ne bi dañu xamal ne Macky Sall loolee la mi ngi nekkoon ci dëkk bu sel ndox mu sell mi nga xam ne yàgg naa nekk jafe-jafe danaa leen ci indil ay saafara kaddu Idriss Seck la bu dee nag Ousmane Sonko moom Sonko Sonko bi kon nag fi nga xam ne nag moo di Saint-Louis foofee nag ay kaddu bis bu ñu ko joxee réewum Sénégal lépp loo xam ne jëm na ci éducation islamique waaw maanaam njàngalam diine Ousmane Sonko nee na dina ko dekkal ci moo di professeur Issa ba mu jaare fi nga xam ne nag moo di Gossas dig askan bi nga xam ne nag ñoo nekkee foofee waaw te lépp loo xam ne jëm ne ci ay gerte gi ak nañu koy jaaye jafe-jafe yi ngi cee jànkonteel Issa Sall loolee bu jotee nguuru Sénégal dana ci andi ay saafara vox li ñu xam ne ci jamono jooju Ousmane Sonko kay jamono ji dafa song ki nga xam ne nag Macky Sall waaw yëkkati ay kàddu yu tàng daal di koy jëmale ci Macky Sall Ousmane Sonko daal di xam ne jamono ji Macky Sall daanaka réewum Sénégal lu ko neex rek la fi nekkee jamono ji nga xam ne nag moo di Amadou Sall waaw Amadou Sall jamono ji daanaka Macky Sall day sàcc di ko rawale di ko jox ki nga xam ne nag moo di Amadou Sall dem leen ci Dubaay Ousmane Sonko ne bu ngeen demee Dubaay di ngeen fa fekk ay ay immeuble yoo xam ne doomam moo ko tabax muy doomam Amadou Sall te Macky Sall mii daanaka bokkul ci famille goo xam ne maanaam ay milliardaire rek amuñu xaalis kon bokk xaalis boobu bi fan la koy jëlee Ousmane Sonko moo xam le lu ni mel moom nag daal koy jege moom Ousmane Sonko daal di xam kan mooy Ousmane Sonko yéen kaay bi du ñu xam ne Ousmane Sonko moomee daanaka ab révélation maanaam wàllu daanaka phénomène la ma nga juddee Thiès màggee fi nga xam ne nag moo di Ziguinchor yaay Mame Khady Ngom la tudd ci bëgg ay leeral fekk ko ci yéenekaay bii di enquête laas yéenekaay moom bi di xam ne ci internet bi waaw gannaaw a yóbbu di ñu xamal ne daanaka daal ñëw Idriss Seck gi nga xam ne ñëwoon na ko ci diggante Touba ak waaw wóor na lool 28 tàngoon na waaw ñi nga xam ne nag ñoo àndoon ak Modou Bara Dolly Mbacké ak ñi àndoon ak Moustapha Diouf Lambaye démb daanaka foofee tàngoon na jër ba ay xeer sax jotoon naa démb 28 tàngoon na jër